salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi coow li dama ne woon pare naa ci mais yéen ak may tooñ gis naa yaayu ma ñaay sekk di wax ngeen naan aadama doomu xaram la tas na famille aadama doomu raam la bu ko àq nit ñi daree aadama bala moo tas famille da ni di xalaat audio yi fan la ko aadama jëlee ma ñaay sekk ku nekkoon ménagère am Baye Sall kan la doon waxtaan bi mu doon waxtaan ak yaayam ku ko doon yónnee Baye Sall li doon seq ak nit ñi ku mu ko ko doon defal Baye Sall la jotee ci Sénégal ba mu wëlbati ku mën koo yàq ci internet bi ku dul Baye moom rek la joteel dama gis audio yi Baye Sall dugal ko ci benn lien bu ñuy wax Team Sénégal foo compte la ma xam ne Baye Sall ko dugal ma jël lien bi copier ko yónnee ko Baye Sall Baye Sall daan ne bàyyil ma supprimer audio yi yónnee la yow audio yi nga tasaare ko ci la ma envoyé vidéo yi ne ma sax am na yu des am na lu ma yor ci yaayam am na lu des dinaa la ko yónnee noonu laa branché woon audio yi ma njaay sekk yaa ngi dégg ma koy jéggalu di jéggalu yaayam parce que Baye Sall bi taxoon ma def ko dara moo tax ma jël man képp ku ma envoyé dara xam naa ko man defuma man la aadama bos tey néegi man du ma tudd tur noonu laay demee damay xam ne maa xam information ay nit lay jóge man maa ngi Italie man sequma ak ma njaay sekk lu ma ko yàq ma njaay sekk defuma dara defuma la ñaaw musuma tooñ Baye Sall la joteel moo ma yónnee audio yi ma branché ko ba ma ko branché na coow li bari ci la jaaga jëlee téléphone am ki ne Diouf jaaga si joo yaayi waale sekk mu woo mbay si jaay ne ko woowal aadama fi coow li dem dafa ëpp Amady Badiane woowu mbay si wooma ma dindi audio yi bàyyi sal nekk hypocrite audio waat ma naan ma non bàyyi mu sedd affaire yooyu mais moom la mais aadama bu dugalee audio da ngeen xool kan moo ko jox audio yi ak fan la jógee lu leer laay wax ngeen def fii di ma xas naan aadama nangam wéy ma compte bii ma leen di ma leen di tagg ci suuf nii tim senegal la tudd am na ku ciy wax ci Ramadaan di yàq Ramadaan ni waxee day wax di jugaat bu waxee pause jugaat ak ni muy waxee Adamo déglu leen voix bi bu baax a baax dañ ko sensé nag ngeen xool kuy wax foofu